voilà salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu fiy dalal uh, kii di sëñ bi Gaston Mbengue nekk uh, membre benn bokk yaakaar di grand soutien du président Macky Sall ñu génn ci ay élections législatives tendance yi di commencé feeñ ñu bëri jàpp ne yi mu ngi ci yoonu gagné élection yi uh, que Benno mu ngi en phase de déclin boo xam ne quand même c'est exact maintenant nag nga ko jàngatee déjà. waaw jërëjëf euh, kande xam nga nag Sénégal ñun ñëpp luñ dëkk ay sénégalais la mais li xew nii euh, dama defee ni manipulation la ndax dara xewagul mu ngi commencé génn ay résultats yeewee ngi génn ci certaines euh, contrées mais sénégalais yi damay bañ ñu nax leen ci xel di préparer leneen pour ëllëg parce que gagner ay communes. ne veut pas dire gagner ay département Benno Bokk Yaakaar man na perdre commune ba pare gagner département département est plus important que la commune est plus hmm. peuplé que la commune la preuve à Louga gëm a dëkk fu laa wootee tey gañe nañu euh, yooyu gagné na commune ba mais gagnewul département bi kon Louga département génnagul hmm. commune la gagné ci commune ba li may wax ni Macky Sall Macky sal ay waa APR ñoo ko trahir ñoo koy nax dañ ko liggéeyalul dara man Louga laa dëkk Moustapha Diop liggéeyalu ko fa dara moo jaxase Louga ba créé fa ay noonu noon yi di révolté wut c'est des révoltés la nature dégg naa sax léegi muy wax ni mbiri Silla xatab Silla bu Dakar dem dikk ak Aminata Mbengue ñoo joxe ay sang ay ay wax c'est pas vrai ñoo ñoo ko gën a bëgg Louga gën koo bëgg Benno il faut pas que muy nekk un mauvais perdant moom moo jéewul le jeu ak le président Macky Sall dégg naa léegi ci rajo bi ñu ne Mame Boye Diao dafa perte bureau de vote mais un président de la République sax mën na perte bureau de vote ba pare gagné mhm. perte bureau de vote du dara man mën naa perte sama bureau de vote ba pare euh, bennoo gagné ca centre ba mhm. il faut pas que ñuy nax di sa xelu nit ñi di nax nit ñi ci xel di jéem a brouiller nit ñi c'est bien vrai yeewoo oh, am na mérite am na ñoomu gañe ci ay ci yoo xam ni su euh, waa APR joué woon le jeu woon le jeu honnête même au niveau de Dakar fii ay Médina ay kii yooyu yëpp xeexante bi ñuy xeex seen biir ñii ngay xeex Cheikh Ba ñii ngay xeex Bamba Fall ñii ngay xeex ku kenn xamul. Médina par exemple gis nañu ñuy sànnante seen ay xeer. ay xeer ci seen propre biir ci seen propre biir. ñooñu seeni intérêt personnel ak peut-être euh, euh, défendre yeneen cause moo tax ñuy reyante ci seen biir mais reyante wuñu pour le président Macky Sall le président Macky moom rek la ñu fal ci Sénégal moom la ñu fal et il est très honnête loyal ak ñoom mais nag ndeysaan euh, nit ñi xamuñu kanay président Macky Sall xamuñu jikkoom dafa baax bu mu ëpp alors ñuy profité ci mbaaxaayam ak ay santiment di ko trahir man su ma déggee sax ay certains leaders commencé di di di euh, féliciter di wax wax ju rafet félicitation c'est bien boobu mais am na yoo xam ne clin d'œil la am na yoo xam ne clin d'œil la parce que tiit nga ragal nga ni kay day gañ ngay commencé di rafetal victoire am dara génnagul. compte bi pareegul. compte bi pareegul. parce que élection yi dafa am liste nationale. mais mais dafa am liste nationale. voilà majoritaire. Mm-hmm. boo xam ni dégg nga maam xëccoo au niveau national ak xëccoo ak gagné sa sa commune bokkul ak gagné sa département le les départements sont plus importants hmm. nit ñi nan bu ñu jéem nax sénégalais yi ci xel parce que raw gàddu la raw gàddu la mën nga gagné sa commune benn nit rek mën nga koo raw niveau départemental c'est ça hmm. nga perte lépp donc bu ñu jéem a nax Kande bu ñu jéem a nax nit ñi. maanaam yow da nga jàpp ne la rajo yi. bu ay anticipation dañuy préparer nit ñi pour ëllëg su leen amee sax ñu ñu commencé di xëccoo di wax ni dañoo sàcc dañoo kenn sàcc fi kenn. kon yow nga ne ak li ñuy wax yëpp ci ñooy koy bàcc. mais man de je suis serein damay xaar. mais tendance man man man naa gagné comme man maa gagné mee damay xaar ba résultat yi génn. mais du ma xaar ci ay résultat ay communes yu génn wala ay bureau de vote ak ay euh, centre de vote bon avec la complicité de certains journalistes aussi yoo xam ni ñooy taxaw di divulguer tout ce qui est positif pour l'opposition tout ce qui est négatif du leen ko waxal ñu ngi jéem a génne ay commune ay tête mais nan génne département yi nan xaar département yi gën nan xaar contrat yi. ci maanaam ñu joxe résultat ay perte nañu am cohabitation benn dafay daan. mais lan mooy xam nga lan mooy cohabitation. de façon fii région présidence